tabaarakallaahu koor dafa metti boo boolee xiif ak mar bëgg cee boole ak wax tabaarakallaahu ah ndimbalu yàlla rek ci dugg ba lépp jag waaye boo sante siise wala jaxate rek mooy wax sax sa xel day nekk ci tabaarakallaahu ñoom añak ñoom ñooñu te tabaarakallaahu <laughs> yal na yàlla barkeel daal ci barke yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyuwaat suñu baay Mamadou Sow di ko ziyaar bu baax ak ah, Ousmane Touré jarul nuyu moom sa xarit la xam naa nga nuyul ko sa bopp ñu nuyoo monsieur le maire rek yóbbaale na ko man président ak Ceekura laay nuyu waaw tabaarakallah ak Tayibu ci wayam yàlla ya ah waaw sa doom la ndeysaan rési suñu xarit la tabaarakallahu taal ñu ngi leen di ziar bu baax tabaarakallahu di jéggaluwaat ñëpp nag ci kàddu yi ndax kàddu dafa doy waar léeg bu génnee rek yow mi wax loo ci loo ci bàyyi xel da ngay ratatat rek di wax rek waaye lépp loo xam ne wax nañ ko te muy njuum te ñu ngi koy jéggalu ñëpp bëggoon rek mu neex tabaarakallaahu bañ a xaabaabal it mu ëpp ndax it xaabaabal lu ëpp mën na indi musiba monsieur le maire waxoon naa ko fu ne ma ne leen borom borom wutir bi dafa feebar ñu yóbbu ko hôpital di ko seet docteur bi ne ko boo xefee dee ñu ne ko lu tax mu ne moom ndoxu gémmiñ na ma jeex dafa amee problème mu ndoxu gémmiñ ndeke moom dara yóbbewu ko lu fas yim naan mm, mm, mm, looloo jeexal ndoxu gémmiñam bi yàlla dogalee mu tëdd ci eh, perogu hôpital morom yi borom watiir yi dajaloo ñëw di ko seet si def délégation seet si ko ñëw di fekk ko mu tëdd waaye lu xew mu ne ah de ñu ne ko dee lu waral mu ne ah docteur nee na amatuma ndoxu gémmiñ ñu ne ko lu ko mu ne ñuy ñii de <laughs> ilee ne ñoo ali ma ne ko du tax ngeen génn ci nag loolu laay doon mu ku nekk turam di profité ci weeri koor bi di leen jéggalu di ñaan ngeen jéggal ma di ñaan tamit ci barke weer bi yàlla nangu suñu jaamu yàlla te fulal ñu ko lépp liñ si ñaan yàlla ko yàlla nangu ah, di wax sëñ As kontaan nañ trop loolu jarul sax laaj nañ trop sëñ As comme di ko 15 waxee rek mi ngi noonu sa loxo di nuyu ñëpp di gërëm ñëpp tàng na ni si koor heure bi tukkuleer yi ak joolaay ñu ngi nelaw waaye terewul ñu ngi fi toog kon nag gërëm nañ ñëpp képp ku ñëw jàpp ci bés bi ñu ngi lay gërëm bi la sant ñu ngi gërëm suñu parrain bi te famille toog fii dinaa nañ ko jox kàddu ah, nuyoo bi nag waroon naa si jiital inspecteur inspecteur ñaa après bu ma paree sax naa ko jox parole inspecteur ñu lay gërëm ci kóllëre gi conférence ba mu fa dalee ba léegi keroog dama daw sax topp la ne lay yaa yaay sama njiit saa yu conférence bi am ne yow yaa ñëw toog dama bëgg nga ñëwaat toog ma lay gërëm bi la sant ci kóllëre boobu yàlla yàlla yokk la sëñ As xam-xam bi yàlla na ko yàlla yokk yàlla yàggal la fi yàggal taxawaay bi ak ñi nga àndal ah may gërëm maire kii monsieur le maire honorable honorable nag moom dama koy wax toujours ne ko ci ñun la bokk wala ñun ñoo bokk ci moom ñun ay njabootam lañ xam nga lu tax honorable gis ngeen fii yëpp mairie moo ko moom te gis ngeen école li ko dalee service technique communaux muy école maternelle bi muy centre social bi ak centre documentation technique locaux mairie la école bi état bi tabaxu ko parents d'élèves tabaxu donc ay locaux mairie la loolu dama koy revendiquer fu ma mën ci tool di wax man école municipale la que monsieur le maire loolu dama koy feddi wax man école municipale la parce que yow yaa ma logé man ci sa njaboot laa bokk muy benn ñaareel bi yow sa doom fi la jànge ñaari at muy Mamadou Fall ñun ñoo ko donc yow ñun ak yow dafa yàgg dama jëlale nag li ngeen di petite enfance gis nañ ko au niveau général gis nañ ko dama ko jël mais man kon damay wax tey waxuma ci turu petite enfance waxuma ci CODEPE damay wax en tant que directrice Diourbel bi moo tax may waxee noonu donc ñun dañ dañ lay yëgalaat ne ñu sa sa njaboot lañ bokk sa njaboot lañ bokk di la gërëm si teewaay bi ak ñi nga ànd mais kóllëre wax naa ko léegi yow suñu kóllëre bu baax la yow yàgg nañu ànd ak yow depuis bi ñu fi commencé extrait de naissance xaw ma la président Aliou Siré ba moo ma yëkkati sama loxo yóbbu ma ba sa bureau mu teg ko sa loxo ne la kii mooy directrice bi jàpp nga jàppale ma nag muy gërëm Aliou Siré waru ma koo gërëm sax ndax ñoom laay liggéey ñoom mooy affaire boobu ba léegi yàqoo ci dara mel lu mu mën ci door bu dégg bëccëg sonal naa ku ma xam sax di wut expert dama ko ne dama def tribunal soo demee nga daal maître bi bële nga ne ko directrice moom boole bi te bu ñëwee doo ngay faj soxla donc yéen ñëpp ñu ngi leen di ñaanal point focal fàttewuma la coordonnateur mi ngi fi gërëm naa ñëpp parents yi gërëm naa ñëpp di gërëm nag sama équipe pédagogique waaw yaa Seyda yow mention spéciale te yaa aye quoi waaw te yow la te yaa moom sa koo ci mayul bi ci bokk équipe bi sax yaa leen di may te yaa moom tey moom boo ci mayul ay ba du ci am yaa moom sa koo ci may rek muy loolu donc gërëm bi yow yaa ko yore waaw allah don di kontaan ci parents di wax parents yi di leen ñaax parents yi jàpp leen si école bi conférence bi waroon na ëppee nii xale 160 la waroon nañu am minimum 160 multiplié par 2 parce que parents yaay papa la jàpp leen si école bi yéen la ñuy liggéeyal xam-xam bi oustaz bi def ci xale bu paree ci yéen la jëm si kon nag na ngeen jàppoo ñu jàppale xale yi mu jëm si kanam. donc lu ma fàtte lu ne Tafa Diouf mi nit ñi mooy suñu maam léegi sax mooy maamu xale dama koy fàtte sax ndax xale yi ma tegal fii ñoo daa Fatou gis nañ sa taxawaay yow ak men ànd jàmm di gërëm sama dëkkandoo yi ñoom ñëw nañ bu baax li ma dëkkal seetaan nañ ma bundu xatal di gërëm sama collègue gi aussi mooy directeur yi nekk si école yeeg enseignant yeeg yëpp di gërëm suñu tonton tonton petite enfance tonton Mor Fall gërëm nañ ko ak soxnaam di gërëm ñëpp waa ñoom maîtresse ñi fi nekkoon jóge fi ñëpp ñëwaat bi defe naa daal fàttewuma kenn parents sa loxo gërëmal ma gërëm nañ ñëpp sant nañ ñëpp baal nañu ak ñëpp nag baal nañu ak ñëpp na ma ñëpp baal ma jox monsieur le maire ci kàddu après ma jox inspecteur Moussa di ci kàddu. jërëjëf ñu ngi ñëpp rek ñu fi teew di yàlla yàlla nañu fi teewaat ak déwén jiital nduy bi suñu muntaxaati ko ñaanal yàlla suñu borom mu yàggal ko suñu kanam loolu te ànd ko wér. ndax sëñ Mbaye si xalif général Tidiane yëpp di nuyu tamit ñi fi teew yëpp di félicité conférencier waaye as moom bis bu nekk moom nga génn fu neex a neex tey moom vraiment tey moom macha allah di la félicité di félicité aussi ñi la jël parce que damay naan saa su ne Jurbel lu fi nekk dañ ko war a xam ndax bis bu nekk nga ñëw des fois wax ak ma ne maa ngi dem Tamba maa ngi dem feneen. waxuñu bu kenn di beneen conférencier waaye li ñu am mooy seen ci locale ñeneen dañ koy jël di ko jëriñoo kon madame di la félicité yaa ak sa équipe bi nga xam ne tey jii jël nga ñu nekk njaaram ñu animé conférence bi tey nit ñi toogee kenn bougéwul ñëpp kontaan kon loolu dama ciy ñaax ñu bëree bëri kenn ku nekk war nga am feneen di ko jëlee waaye ñun lu nu am dañ ko war a xam ba di jël seen conférence yi suñ may mbay ngiraan mu ngi fi. moom ak ñeneen ak ñette ku ñu wax ñëpp kontaan Sénégal gépp bëgg leen kon nag kenn ku nekk nay seet lay njariñam te mu dëkk ko mu di ko tiitaroo parce que wax mu ci c'est fait normal mais ñii buñ doon demoon télé di wax leeram ñoom leen kenn lu am feneen am na merci félicitations yéen ngeen xam waa Ndiakhate di nuyu représentant IEF inspecteur Niang maa ngi koy ci koor bi moom moom démarré na bu yàgg jërëjëf ins ak délégation bi nga di nuyu Mor mu fi jóge léegi di nuyu El Hadj Thiam di leen féliciter encore ci liggéey bu rafet bi ngeen di def ak encore di ñaanalaa tamit euh, monsieur et madame Mor Fall yàlla yàggal leen seen i lool li mu liggéey petite enfance baat na tukk ko fàtte en tant que maire Diourbel ñu ngay ñaanal yàlla gudd fan ak wér nga ba nga fekk si njëriñ seen yàlla na ko yàlla def. donc di nuyu encore parents d'élèves yi liñ ci wax li leer la ñu gën a jàpp gën a farlu vraiment ci yii ndax ku ñu koy def ñoom lañ koy defal di nuyu tamit représentant yi nga xam ñoo fi nekk yëpp ñoom madame Fall ñi nga xam ñoom ñoo fi teew yëpp ak madame Sène bi fi jóge léegi euh, donc vraiment ci ñëw fi ñëw jàpp ci bis bi yàlla na yàlla jàppale di nuyu aussi euh, syndicat yi nga xam ne ñu ngi toog fii léegi ñoom ñëpp di ñëw ñoom ñëpp ñooy tamit jàpp ci bis bi ak AV encore di nuyu tamit euh, Maître Guèye di sama xarit sama doomu ndey di ko ñaanal yàlla bi ngay liggéey ci tribunal di ko liggéey ci njaar yàlla ci suñu borom jàppale ku bëgg Diourbel nga fu ñu dem yow de yóbbu fa loxo yóbbu sa poos vraiment yàlla na yàlla jàppale yàlla na yàlla li nga bëgg ci njaareem yàlla na si yàlla sa borom kattanal ba nga mën ko liggéey liggéey sa liggéey Diourbel loolu moom moo la ci ñor donc di nuyu tamit seen doyen Mamadou Sow di nuyu ñi nga xam ne ñoom ñoo fi Euh, teew yëpp vraiment di féliciter ñëpp ci li nga xam ne moom la ñu démarrer encore koor bi di ñaan yàlla ñu dugg ci bisimilahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabbil alamin fii lañ ko démarrer ndax école bi c'est la première fois mu ñëw comme ni mu ko waxee chaque année dama koy bëgg mais yàlla du ko tudd xam naa maanaam Fall yooyu sa bopp dinaa fi ñëw bul wax dara yar may ajoo sa weer yi rëy yi <laughs> day rek dama ñëw sama bos <laughs> mais daal ñëwal nag. Ah, donc kon ñu ngi di sant ñëpp di ñaan yàlla yàlla nañu daraja déwén ak jàmm koor gi suñu borom jàpp lañ ci baax petit enfance nag man dama leen di sant ndax boo gisee parc d'attraction bi janoog mairie presque un milliard la coûté soo gisee ñu koy tabax lenn yéen rek a tax ma di ko tabax ndax chaque fois day ñëw daan ma laaj di laaj oto man oto yi di yóbbu xale yi ba sax accident yi wóorul kon donc la waa am

da ngeen ko bëggee ak na ngeen ko bëggal gérer ngeen def ko ni ñaan yàlla yàlla na ko suñu borom mottali ak jàmm ak salaam en tout cas daal doyen Mor oustaz ak ñi fi teew yëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax di ñaan yàlla bâche yi yàlla na ko suñu borom di yàggal buñ koy def nag ci koor rek nañ koy def ci yeneen bis bis et puis ñu fi jàngale tamit ñu di ko déglu di ko jëfee ndax bu doon seetaan télé li tey di wax li conférence yi di wax bu ñu ci doon jëfe tuuti rek lu bari dina soppeeku waaye dañuy déglu mu neex rek bu nu paree gaa yi fàttali ñu fi jàngoon yëpp kon lépp luñ wax soo ko tey ak xol bi mu metti trop ngir yàlla wóoru suul yi ñun buñ ci jógee même bu nu appliqué wul 100 pour cent ne appliqué 2 pour cent ah ni ñuy wax bari na de waaye ñuy appliqué moo bariwul kon nag yàlla na yàlla kattanal ba nu mën a lépp en tout cas ñu fi teew yëpp di ñaanal yàlla yàlla nañu jàppale bu baax xale yi yàlla yàlla def ay mag yàlla def ay président de la république jógee. yéen ñi ngeen di sonn ci xale yi yàlla yàlla fay salaire bii ñu leen fay jàpp leen ne salaire mënul dara ci yéen liggéey bii ngeen liggéey doomu kii doomu yàlla yi xale yu ndaw yi ngeen ko xoolee xam ne ñuy defar seen jikko boo liggéey ñu tekki tekki Sénégal ngeen ko xoolee rek di ngeen mën a muñ lu nekk yàlla na yàlla may xol mën waaye ku jël xale ba nga xam ne suñu doom yi nga xam ne ñu doy waaree dinaa ñu am jàmm ñu ne dem nañ dem ci école rek jigéen ñi doo ko mën a nelaw am jàmm tëj seen te tëdd tëddaan seen télé yéen ngeen nekk ci ay problème transféré leen ko huit heures ba midi xam ngeen yéen kenn amul seen fay te ku xam xale bu xamul dara bari problème te réew mi wax na ko fii léegi koo dóor doomam mu ñëw lu tax ko dóor sama doom koo ci pince mu tax ko pince ko te xale yi des fois mu boo leen yoree nag duñ doon dóor des fois ba koo ci yuuxu sax mu dem ne yaa nga day maa gëdd ceeb ko mu ñëw lu tax ko gëdd sama doom kon parents yi nañ xam ne aussi bu ñu dénkee xale yi tamit xale yi tamit il faut ñu defar leen seen jikko tuuti bu buñ départe ci kër yi yow ma nga xam ne sa doom am na lu fi changé li ñu fi jàng léegi xam nga ni tamit ñu ngi dugal alxuraan ay arab ci biir te loolu aussi lu am solo la maa ngi ci félicité en tout cas daal ci li may wax daal ci loolu yàlla na yàlla fay yàlla na yàlla jox xol muñ kuy jéem ay ak yenn ko xale da mën a muñ mën a naxante école yi na ngeen ko gën a dëgëral gën a jàppoo nekk benn ñun lu ñu amuñu doole nag waaye yàlla na yàlla may kattanal ba bis bu mel bi amee doole ba am kattan lépp lu mu mën a joxe te jàppale ko ci côté enfance def ko feneen foofu am solo te lii seen compétence la boobu yàlla na yàlla jàppale ñu ngi leen di gërëm di leen sant jërëjëf. jërëjëf monsieur le maire. jërëjëf Tata Salim ci ceeb bi nga ñu ceegale daanaka. daanaka. kàddu yi mënoon na ñàkk su monsieur le maire waxee rek waxaaleel na ñëpp waaye comme teraanga du tuuti bon ñu barkelu ci tuuti rek sant sëñ As Malick di ko félicité ci waxtaan bu am solo bi mu def di nuyu monsieur le maire di ko jox wàccuwaayam euh, ñaan yi ma ñaanal léegi ñu delloo ko ndax yaakaar naa kuy bëgg njaareem rek ci desitam muy tibi diko ñaan yan bi ko yalla yan yan nako ko keñal ba limu nam ci ñaarem yépp mu def ko ba mat sëkk dama ko wax bis ma ko duma la iñaana ñaanal la nga réaliser lu bari ndax su fekkee bëgg naa toog siis bi nga toog su ma fekkee nga liggéey lu bari bari fi may tàmbalee day jege bon yor na ko yàlla gën a kàttanal ba su fiy jógee ndax ta ñak fekk na ñaarem njaareem ko na mel niñu ko yalla nako yalla def ci barke weer ko ñi ngi nuyu sunu mag monsieur Elasiam de point focal petite enfance di nuyu kilifa yi nga xam aussi jóge nañ fi di nuyu direct directrice stata Sali mais di tek nuyu bi ci loxom mu ñu ko équipe pédagogique am waye également directrice yi nga xam yépp yëpp lañ nañ fi di nuyu tonton Mamadou Sow mais également doyen Mor Fall di leen jox seen wàccuwaay di leen ñaanal wér-gu-yaram ak gudd fan di nuyu ñu toog ci jotaay bi yëpp ak parent bi mi ngi mel nii li ma for ci conférence bi sëñ As wax na ko dafa mel ni kon lépp mi ngi delluwaat ci gune yi gune yi buñ ko xalaatee mu ne bon sa doom danga koy tànnal wuy jur mu mel ni bon loolu mooy sookulu société bi wax na ko mu ne ko xale léegi bu génnee ci mbedd mi soo ko dóoree ñu ne lu tax waaye bon ñun way julli bu ñu góorgóorloo ci yàq xale yi ci biir kër yi yar leen ci école bi bon amatul lu ñu tiit ci mbedd mi ndax ñi dajee ci mbedd mi yëpp defaru nañ ba noppi bon nag dañ leen ci gën a góorgóorlu ma for ci it ne nee na sa doom ba demee ba am fukki at boo ne koo jullil bu làng war na koo ñemal tuuti karawaas mu mel ni nag noon yi ñi nga xam ne dañ ñoo bëgg a bëgg a suñu njaboot dañ ñuy bëgg a tàmbali di gëmloo ni droit de l'enfance les droits humains kenn amul droit dóor sa doom bëgg ñoo ruu lu weesu li nga xam ni tànnoon nañ suñuy ndaw dugal leen ci lekkoolu nasaraan bi ba def ci ñoom ay jikko yu tubaab ba nga xamante ne sii donte nañ Ibrahima de tudd waaye jikko nasaraan lay nekk ci moom bon nag tey bunt bi nga xam ne moo ñu mën a permettre ñu renverser tendance boobu amu ci lépp solo mooy bunt bi nga xam ni ñu ngi koy def ci petite enfance di ko wéeraale ci njàngum diin ndax kat tey àddina bi lëmbe noo lëmbe ba nga xamante ne sii jaxasoo na jaxasoo ba nga xamee ni si dolli ci nekk ak village planétaire lu xëyee Amérique yenn bu Sénégal lu yenn bu Sénégal faraani Amérique bon war nañu ñett suñuy njaboot toqantal ci ñoom la nga xamante ni si dana leen fees dell ñàkk leen ba nga xam ne caaxaan dootu leen mën a fekk bon nag wax dëgg yàlla amal nañ leen cant la nga xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem jarul ñuy dund guddal ndax naaj na di am mbégte bu baax a baax a baax di renouveler suñu ndax c'est une façon pour nous de rendre la monnaie de la pièce parce que Diourbel lañ cosaanoo fi lañu jànge bon na buñu ñu yàlla dëppee ñu fi liggéey lépp lu ñu mën ci taxaw suñu njaboot taxaw suñu askan donc c'est une façon de participer au développement ñu leen di sant bu baax di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatulah. Euh, di gërëmaat ñëpp rek ku def sa loxo sa poos ci bés bi muy siyaare beeg taabal beeg yëpp gis nañ lépp ñëpp ñaanal ñëpp yàlla yàlla fu lool ah euh, ñu ngi gërëm madame Della Lafar bi nekk HLM. yónnee woon na fi délégation loxo tudd na ci bés bi maa ngi gërëm tamit syndicaliste yi toog ñoom Ndiaye ñoom Aliou Siré moom ñaari kii la kii tey moom appel la tey syndicaliste waaye gis naa ko fu mu dem toog moo tax ma boole ko foofu daa dem dem dem nag Mamadou Ndiaye kon nag ñu jox parrain bi wala marraine bi mu sànni ci kàddu. di

au ministère di toogaat aussi en tant que parent d'élève. am nañ ay donc au nom du parrain mon ngi di gërëm di leen di sant yene moo nekkoon ñoo toog fii jàppale leen ci bëss bi mais comme li ñuy wax rek Yalla moko dogal len ni mais mu ngi di gërëm di len di sante ñun aussi ñu ngi di gërëm di gërëm conférencier bi ci thème bu am solo bi bi nga xamné ne

mais aussi ñu war a gën a comprendre que ne famille du jigéen kese fu ñu waxee jigéen aussi war nañ ci aussi laaxaale góor yi dañuy naan jigéen dañ koy tànn mais aussi je pense que góor aussi dañ ko war a tànn pour mun a njaboot gi ñoom nekk njaboot boo xam ne dinañ amal njëriñ société bi yaakaar naa ne loolu suñ ko defee aussi je pense que tey suñu doom yi nekk fii dinañ mën a dem ba doon nit ay nit yu diine ay eh, nitu islam ay nit yu aussi ci société bi boo xam ne dañ mën a jëriñ société bi yëpp loolu rek laa ci bëggoon sànni di gërëm ñëpp di sant ñëpp merci. madame la marraine kontaan nañu yow wax nga jigéen ñi ah di gërëm koo xam ne sax man du ma ko gërëm dama koy ñaanal muy madame Omar Diop Omar Diop action sociale man ku may indiqué sama école sax dama la naan kër madame ndax ñëpp ko xam njaarim ak jëf di rafet lu fiy def dama leen di wax madame Diop maanaam ñoom ñoo takkaloo bu ñaari bunt yooyu rek boo ci duggee rek benn bi moom la boobu man la donc Omar Diop ñu ngi lay ñaanal lépp loo man ren bu déwénee ya nga man li ko ëpp. Omar ku laabiir la ku yaatu la gis ngeen ni ñu takkaloo ñu dañoo lakkale suñu xale yaa ngi lakkale di sànni ay xeer coowoo yi bureau bu ubbeekoo si dégg bu ñoree kenn dootul dégg. waaye Omar comme ndox du wax dara damay ñëw ne ko ay eh, Omar baal ma am mu ne ma déedéet Sali ci laa bokk man jàngalekat laa ma ne ko waa xam naa ko man nag yow bokkoon nañu seen pédagogie kon nag ngay ñu ngi baax a baax a baax ñu jox point focal après ñu jox inspecteur bi. bismillahi rahmaani rahim. Euh, wa sallallahu taala euh, lay nuyu. Euh, di nuyu kilifa dëkk bi monsieur le maire sant bi rek moo ko xaw a ci poor bi damaa ko mën nag mi ngi may mi ngi may tooñ waaye yàgg xaw ma moom ndax ci côté ban la bokk fu mu nekk ñoo ngi koy bu baax baax di nuyu ñi mu àndal di nuyu kilifa yi fi teew yëpp rek di nuyu directeurs yi ak directrices yi jàngalekat yi syndicalistes yi yëpp. loolu lépp nag ñu koy def ci turu IA mi nga xam ne mooy kilifa dëkk bi mooy wàllu njàng mi ci dëkk bi di ko def ci turu IEF Massaly ñoom ñëpp ci seen tur lay jël ak sama ni ku yor njàngum arab meeg diine bi mën a di am mbégte ci teewaay bi lool nag ndax damaa xam sa yitte maa xam sa yitte ci ci bis bi ak ci liggéey bi maa ngi fàttaliku daaw xaw ma daaw jëg bi yaa Sayida mel ne amee congé ni nga sonni ci diggante boobu rek ngir ñu indi la ci daar daar ku fi ku remplacer euh, kii bëri ba dañoo mujjoon am ay pexe yu ci defoon loolu lépp yitteel ak yu yëg fàttewu ma ko barki dee moo jaay maa ngi romb fii rek nga ñëw dab ma di ma ko fàttali fekk boobu da indi woon invitation bu foofa ci bureau ba fekk ma mu yëpp ay yëg ak yittewoo ci xale yi ci xale yi dañ koo jar ndax njàng bi moo bindoo noonu Euh, ñun ci wàllu jàng jàngale bi dañuy wax lépp luñ def ci jàng jàngale résultat ba njariñ la dafa war a feeñ ci xale bi su dul loolu ñàkk nañu mooy li ñu wax la centralité de l'enfant moom mooy moo nekk ca xolu liggéey xale bi moo nekk ca xolu liggéey bu ñuy tabax bu ñuy jël ay jàngalekat bu ñu koy tàggat bu ñuy jël jënd matériel équipement yëpp bu bu fekkee ne njariñ la feeñul ci xale bi moo yàq na su ko defee loolu nag ñun ñëpp ko war a xamandoo ñuy taxawu xale yi ci barabu jàngukaay yi ak waajur yi maa ngi maa ngi rafetlu kàddu gi mu wax léegi ni góor ñu war na leen cee boole waaye question d'interprétation la rek man damaa jàpp ne sax yéen au lieu que ngeen jàppee ko comme critique waaye da ngeen war a jàpp ni yéen seen rôle ak seen taxawaay moo demee noonu ci mbir mi noonu la noonu bi moo egg foofu ci loolu yonente bi moo leen ko njëkk a dox kon na ci rafet tamit taxawaayu euh, euh, conférence bi lu ama am solo def ci thème bi yéen seen seen euh, gëdd moo toll noonu moo tax mu ne suta waxtu tudd leen yonente bi alayhi salaatu wasalaam biñ ko laajee euh, ni ko wa yaay ak baay kan moo ci gën a yayoo ñu warmaal ko topp ko ñetti yoon la wax yaay ba ca ñeenteel ba la doon a wax baay loolu mooy wax seen gëdd foofu la toll nit mbir mu nekk nag fu gëdd ba toll rek noonu la ko mbir yi juboo kon du question critique wala ñu jàpp ne jigéen ñi dañoo gën a waaye di wala dara déedéet seen seen valeur moo egg foofu moo toll foofu loolu nag nit ki da ko war a yëg da ko war a yëg ne valeur am nii la parce que yéen entreprise la boo xam ne nit lay liggéey nit lay fabrique nit mooy nekk ci moom mu mu guddi bëccëg tëdd fu mu nekk àndaaleeg moom ak la ci ko la ko tey fekk lépp ci tolluwaayu yaram ba indi ko ci àdduna kon kooku valeur am da ko war a yëg. ci biir waxtaan bi bu ko yëgul bu ko yëgul rek dëgg la plus que université sax parce que université dafay xaar ba nga àdduna moo mu door a taxaw waaye bu dee yaay moom fa mu lay tàmbalee di la accompagner loolu dafa kii moo tax yéen macha allah seen valeur yëg conscience bi nag dafa war a am malheureusement man loolu moo may metti metti lool dafa mel ne valeur bi. Euh, conscience yëg-yëg bi ñu ci war a am dafa des dafa des lool sax lool ak yeneen ak yeneen yoo xam ci jamono ji yoo xam ne ñu ngi leen di jël di leen politiquer di leen di nangam ak yu mel noonu am na réew yu bari yu dugal ay genre ay nangam ak yooyu mais sérieusement taxawaay bi ñu leen war a taxawu des na. ay autonomisation de la femme ay yeneen ak yeneen yoo xam ne bëgguma ma di ci xuus mu nuru leneen waaye seen seen valeur dafa ëpp lool. dafa ëpp loolu mais yéen yéen a ko war a yëg réclamer ko wala ngeen taxaw ci défendre kenn mënu leen indi valeur bu toll ne bi leen yàlla jox loolu ba bu ngeen ko xamul dafay daal di indi ay jafe-jafe kon maa ngi rafetlu bu baax a baax waxtaan bi ci côté boobu ci wàllu yar bi noonu mu ko waxee noonu la ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax euh, xéewal bi gën ci àdduna la wax mooy soxna su baax xam nga loolu kon bu demee ba ne la àdduna fee am lu gën soxna su baax loolu mooy kon soxna war naa xam war naa xam gëddaam ci digganteem ak borom këram xam gëddaam ci digganteem ak njaboot ci biir société bi moo xam ne il est au loolu bu ko xamul nag dafay daal di indi ay jafe-jafe loolu dafay metti dafay metti ci nga nekk ay nit ci duñ ko yëg gëdda boobu mujj di def yoo xam ne dañu ñàkkal seen bopp fayda wala nit ñi jàppee la ñu ñàkk fayda yooyu dafay dafay dafay liggéey maa ngi leen di ndokkeel bu baax a baax ci weeru koor di ñaan yàlla mu may ñu eggale ko ci jàmm ak salaam ca ca nangu ñu jàmm yàlla yi. Euh, di rafet lu baax ba seen organisation bi mu ñëwee li ma njëkk a marqué mooy xale yi ni dalee woon loolu dafa jafe dafa jafe ñaari xale nga yor ci kër gi duñ dal na ngeen def man xaw ma nu ngeen ko defee xam naa liggéey la moom boo xam ne moom liggéey ngeen ci xam naa xam na maa koy koy rafetlu bu baax a baax c'est vrai que xale yi ñu commencé te parce que jotaay bi moo yàgg ci ñoom loolu moom noonu la mën a demee. kon ñoo ngi mën a def lu dul rafetlu rek rafetlu bu baax a baax di encouragé ñëpp di wax mention spéciale Oustaz Seyda macha allah li ma fekk am na solo di jégalu ci yaax gay ñëw kon ci turu iya ak iyaaf laa doon jël kàddu gi te rafetlu bu baax a baax ñu di gërëm Cheikh Muhammad Fadel Kébé soxnaam moomu toog gërëm ko daaw doomu ñëpp fi leen jàngee taawam ba ci atam fàttewuñu ko ah, euh, kon nga ñaan waaw xam nga monsieur le maire li ñu ci yokk mooy di yëgal waa école bi ak yow ak sëñ Ibrahima ak ñi fi ne ñëpp am naa carte yi dina ñëw festival salam bi ñuy def ci buntu kër maam Thierno Kandji ci wetu terrain bi ci bopp tëli bi daaw lañ ko def ren ñu di ko tullantiwaat incha allah ñoo ngi ko jàpp le 2 incha allahu rabbi ci kuréel yi mooy président bi incha allahu rabbi ñoo ngi sàkku sàkku teewaayu ñëpp ku ca teew daal yàlla yàlla faj sa aajo daa leen ci invité ndax mbirum mbirum ñëpp la mu di jéem ci jaane xaar bi ñëpp ko moom festival salaam la incha allahu rabbi sëñ seen sëñ bi ñëpp jërëjëf kon nag tabarakallahu xanaa ñu def ñu beneen bi ci des ngañ mi kii la kii doon leen wéyal vingt et une heure et demi lay tàmbali incha allah le deux ngañ mi tabarakallahu doon tagg yéenent bi sallallahu alayhi wa dafay conférence suba ci CCN ci wetu dispensaire bi incha allah mu ngi tàmbali midi wala midi ah incha allah ci le programme bi di tàmbali man nii maa koy waxtaan incha allah rabbi mu ngi leen koy yëgal yal na yàlla fay aajo yëpp ñu jàng fatiha alam na sara juróom-ñeenti yàlla tiif tëjee ko salaatu ala nabi asalaatu fatiha بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين